bàyyi naa ko yàlla borom bët bi dégg yi wax bi daal di daal di bàyyi ba nga xam ne moo Abdoulaye war na ko ginnaaw. Mm-hmm. mu nu jàkk giléem gi giléem gi daanu tàmbali wequ hmm. yàlla daal di yu wax yu yàlla mooy daal di wax ak moom wax ak borom giléem ne ko sa bët euh, ka ka nga doon waxtaan li mu wax dégg la bët jàpp na ko. Mm-hmm. Ah, euh, nañu koy nañu nañu koy nañu nañu nañu ko arrêté. Mm-hmm. ak góor gi itam ne ne lay déglu borom giléem gi ñëw ba tiim giléem gi daal di wax baat yii ba mu ko waxee la bët ba wadd tool ni doomam naa ju giléem gi ni bërit jóg di formé dara ko dara delu ko baat yi mm. mooy bisimillahi ab sun aabi sun wa ajurun baayi sun wa ci xabun xabbi sun radattu ayna ahini wa ala ahabi naasi ilay fët yi batara altere min futóori suma irji basara karatayni yanqalibu ilayka basara xaasir wa huwa nii la ko nettalee ci téere bi. macha téere bi mu bi ñu ko nettalee boo demee ci man bool usulu ikma ak santul mu arif malikul kubra nii la ko ci limaamu xasaali yu nettalee waaw. macha bu ñu ko joxee aw ñam na wax bisimilah rahmaani rahiim yi moo ëpp doole lépp waaye am am na yeneen bisimilah yi suqi bisimilah yaa ayyuha rasulu ballee wala nga ni bisimilahi xaala ibnu walid wala nga ni bisimilahi lesi laa yudru maha ismo sayan fil fi samaay wa huwa samiu alim mhm. borom xam-xam yi nee ni boo ko defee lu nekk ci ñam wa dana tuuru mhm. wala bu dee toog yàlla dina ci def barke ba dina ko dindi waaw yooyu yëpp mat day mat day mhm. baax na jaa jëf. mu ngoog yaay. Euh, euh, euh, yaay maa ngi ñëwaat ci yow mais Fall. Hmm. dama gis ne stratégie aaway li ci ëpp. Hmm. stratégie bi ñu teg bu ëpp mooy suñu amee wujj du ñu bëgg am ak moom jàmm. Hmm. parce que dañ naan bu ñu amee jàmm ca kër ji nga xam ne yaay moo leen fa boole indi ñoom ñaar day ne ci jàmm. te warta yomb ci moom il faut ñu fitnaal ko andi jafe-jafe andi coow ngir ku góor ki mën a bàyyi kenn ki desee kenn ki. loolu dafa bokk stratégie aaway. dama gis ne ñaareel ñu bëri dañuy yóotu jàmm. mais jàmm jooju yaay du am. parce que aawo yi ci boppam ñi ci ëpp ñenn ñi bokk. Mhm. waxuma sax dama naan ñenn ñi. Mhm. dañu naan bu ñu amee jàmm ak xale bu jigéen bi wala seen wujju jàmm boobu bu saxee rek borom kër gi day nekk jàmm te borom kër bi nga xam ne moo jël choix wu dem uti keneen warta am jàmm. mais xam nga. boobu la commencé ñàkk jàmm moom aaw bi. boobu la commencé ñaaw. boobu la commencé ñaaw boobu la <laughs> commencé ñàkk maa ngi lay nuyu. xanaa xamoo ni bi nga waxee ni sama jë euh, aaw bi ñaareel bi duma ko fa may jàmm ndax bu amee ndax bu ma jàmm ak moom sama jëkkër day am jàmm ah. te su boobaa du du maanaam te te te te xam nga euh, boo dee dugg ci ñaareel dañ naan la mënoo ko matoo ko. Ah. te bu kër gi amee jàmm da koy man mat ko. loolu nag lañ lay xañ waaye bi ginnaaw yaa ngi ko koy commencé xañ yow fa nga commencé xañ sa bopp xanaa xamoo ni bëri na koo xam ni moo ngi xañ jëkkëram jàmm fekk boppam la koy xañ ndax néeg bi mu ko ko xañee day génn dugg ci néeg bi am fa jàmm pefto mu commencé rëccu li tax mu yeex laa takk. Hmm. day commencé rëccu lu tax ma yéex a takk ñaareel fekk yow yaa ngi ko bëgg a teg fitna man ko xanaa xamoo ni bëri na koo xam ni yaa ngi wax ni bëri koo xam ni dañuy wax ni sëriñu ko jàpp sëriñu ko def nangam la ajaan daag wax wallaahi réew mi dañoo bëri ku ñu lu ñu teg sëriñ bi fekk sëriñ ba defu ko xanaa xamoo ni da ngay gis ñaar ñu nobante sax ñu ni maa du defu ko dara waaw fekk amour bu naturel moo fa nekk dara raxu ko da ngay gis loo xam ni ñàkk fayday ku góor lay doon mooy yow luñ la def loo nga def ko ba si àgg naa est-ce que maa ko tey fekk yaa ko tey. yaa bëgg sa bëggu boobu non yaa imaginer góor takk jabar. te loolu bari na aaw yuñ ciy tooñ. bari na bari na góor goo xam ne ku mu takk mu dem. fekk kenn defu ko dara kenn defu ko dara bëgg aawam am faiblesse ci moom. kese jërëjëf kese ragal ko teg ci. da koy ragal. mooy faiblesse ba léegi nag guddi gi xañ giñ koy xañ. guddi gi xañ bi ko jëkkër aawa eh, bi di xañ boppam ak di ko teg fitna day dema dema dem ba ni naa yarax kee ndax ma nekk ci jàmm mais ñàkk personnalité fa la tàmbalee damay wax ni jigéen execo da cee am gis nga aawa bi loo leen amoon ñaar fukki at ajandaay nga xas ba takk ñaareel benn droit xool benn droit bi la benn droit benn droit bi la kër gi ñoo commencé nañ koo bokk néeg bi commencé nañ koo bokk. mais des fois ñoo dul yemale faal. yaa ngi dégg sama yaay li mu wax dafa am solo. kan moo dul yemale góor ñi. Ah. d' naa. yaay des fois ñoom ñooy day xam ne ay mbokkam mbaa ay xaritam wala kii takk na ma ko ci dugal mais mënu ko. ko amul personnalité ak ah. mënu ko gérer. Eh, yenn saa yi mu mën ko de. ba pare njaga góor gu am fay. gis nga gis nga gis nga gis nga faal maa ngi nuyu au passage Bouba Ndour kew dama ko lu mu wax lu am solo mu ne Sénégal am na pauvreté mais dafa am ñoo xam ni ñoo dugal seen bopp ci ndóol faal amoo yenn am am yi mënoo nga jël gis nga euh, bët du yenn waaye xam na lu bopp àttan yow amoo benn salaire boo xam ne mën nga ci dundal sa sa bopp yow ak sa ñeenti doom ngay dama ciy tegaat beneen jabar war ko utal location war a am ak moom ay doom toppatoo doom yi yenn yi yaay àq la. te kat yaay yenn yi àq la. gis gis nga góor gi nga baal ma rek gis nga góor gi yóbbu doomu aawam bi yëpp yóbbu Europe. jël aawam yóbbu Europe ñoom ñoom metti leen ci condition bi ñaareel bi toog fii du souffrir bu yàggee moom mooy tas sëy ba maanaam mettre leen ci même pied d'égalité amal ñetti jabar bu la neexee ku maanaam nit moo mënta nit moo mënta yor boppam bay yor keneen nit amal salaire bu baax mënoo yor sa bopp ndimbalu yàllaa tax maanaam amul fukki jabar am ay milliards am na ñoo xam ne am nañu ñeenti jabar am i milliards mënuñoo mënuñoo mënuñu si ay yor